ndeysaan gis ngeen ko noonu li nga xam ne moom moo di drapeau chef de l'État bi nga xam ne moom moo am ci ndar tey ñu jëm si fii di àjjuma dëkk bu rëy dëkk bu neex kan kan kan ban ban ndaanaan a bokk ndar ndaanaan bi waaw ban ndaanaan Cheikh Ibrahima Fall rek ndaanaan ndaanaan dina ko nekk ndaanaan ndaanaan ku li fa ba xëy tamit ci maroon gis nga bu daan doxee tàkkusaan fii nii sa jëy bi moom Cheikh Ibrahima lat suka be waa ndar yëpp dañuy génn di ko seetaan damel fa jóg vraiment doo dégg takkusaan ndar makan waaw lan moo waral takkusaan ko waral a Ibrahima Fall ko waral bu daan njoolaay bi ñuulaay bi ak rasta yi ndar yëpp ay fàq ñëw pont ba taxaw di ko seetaan moom góor googu góor googu dajal boo dajale maam borom Touba mu jox tey li mu am waaye góor googu siiwal maam borom Touba mooy démb xëy tamit ci maroon damay dégg mag ñi naan juróom fukki bitig la bàyyi woon ci ndar dëkk bi ñu jëm ni ànd ak Serigne Touba bul fàtte ne dëkk bi ñu jëm Cheikhul Khalifa waa ji ngay dégg naan góor gi ndar-ndar la. yaakaar ba. ndeysaan bàyyi Basak Baara. ndeysaan maam al Mundaxa. ndeysaan fii la jógee woon dem Gabon. na wax ju rëy yi nga xamante ne waxoon na ko keroog tubaab. Seexul Xadim kenn du moom moom rek a demoon géej. <coughs> moom Seex rawa ngi nii fi mooy raw. fi mooy raw. Baye Mor fi mooy raw. xam nga moo war a raw la moo war a. lan moo war a raw. moo raw. raw la. hey moo raw boo jaaree fi da raw. ba faw maa la wax loolu. daa mel ni romb nañ tamit dëkk maam rawaan ngom. waaw Paal foofay waaye ñu war a demande si dëkk nag bi nga xamante moom la nga bëgg muy gànjool gànjool kooku sama dëkku maam la gànjool moom la Wally Seck wooye naan gànjool sa kër maam Fouta Toro sa kër maam waaye makan gànjoolee sa kër maam gànjoolee sama kër maam tey histoire ndar Babacar histoire ndar <laughs> waaw histoire ndar xanaa liñ ci mën a wax rek mooy euh, xam na ne xam nañ ne euh, dëkk la ba nga xamante ne bii dëkk dëkku teraanga la ñuy wax ñuy wax teraanga ndar la fekk baax parce que euh, Saint-Louisien dafa mën teraanga ndar-ndar dafa xam teraanga ndar-ndar dafa mën teraanga euh, mën naa ne euh, Sénégal pays de la teraanga sax mën naa ne baat bi dëgg dëgg booy xool ndar la soqi ko looloo tax kon ndar nekk na dëkk ba nga xamante ne bii dëkk bu am taarix la te it sëriñ wax na la ko sànq dëkk la ba nga xamante ne bii kilifa yëpp fa jaar Seydi Hadji Malick jaar na fa sëriñ Touba fi la déparé woon bi muy dem ci géej gi. mu nekkoon mu nekk mu nekkoon fi fi fi lañ ko wooye woon ci bureau borom ndar waaw waaw mu nekkoon mu nekkoon mu nekk mu nekk histoire ba nga xamante ne bii histoire histoire bu histoire bu yéeme la te te nañ ko ñu ñu ñu ñu par rapport ak li ñuy jëm nag euh, compétition làmb la bokkul ak euh, euh, yoo ak mbiri Serigne Touba mais taarix la ñuy wax maanaam histoire lu passé fi ñu jëm dëkk bi ñu jëm dëkk teraanga la waaw booy gen booy gendar fi la dëkk dégg naa léegi sax bàyyi na bàyyi na làmb bàyyi na bàyyi na bëre léegi promoteur la waaw fii ngi ñu war a defee drapeau chef de l'État stade bi tëgg na fi ñaar yoon komba moom booy moom moom moom booy booy gendar tëgg na sama mag bu ñu wax Elton te mu doon bëre keroog Dakar moom booy gendar tëgg na ko fi combat bëri dóor Elton dóor waa ji mu daan moom booy gendar dafa ñëw maanaam jël alalam di jàppale jeunesse su Ndar moom aussi tamit naka waa Ndar bàyyi xel te jàppale ko mais tey drapeau chef de ñu dajale ay xale yoo xam te ni ku ci nekk yaakaar naa ne ci compétir bi nga nekk yaa ngi ciy woy ci géego ci lutte simple bi ñu dajale leen tey ñu war a am benn compétir boo xam te ni pays yi tey Diourbel Dakar 14 waaw 14 régions yëpp wa tey war a jongante 23e édition la makkan bu fàtte loolu te xale yi fi jàkkaarloo tey yëpp boo demee Dakar fee ñoo ngi si bëri dóor yi wala ñuy jëflante ñoom dañuy daje adresse Senghor dañuy daje terrain gaal gi waaye tey boo gisee tey fii ñu bëri tey Dakar lañuy lañu nekk fa la ñuy bëree mais parfois nga gis tey ñun du Sané région de Diourbel bu mu jumul lay représenté xaw ma wala xaw ma région de Kédougou ñëwul Fatick yàgg daan na ñëw di représenté yenn région yi tey ay ay ay ay ñoom Serigne Ndiaye aussi. ñoom ñëwuñu Serigne Ndiaye ñëwul ren. Tony tamit ñëwul Serigne Ndiaye ñëwul. Tony Junior am na combat peut-être du ñëw moom Tony Junior kon am na ay manquants yi nga xamante ni ay boy yi nga xamante mooy dégg nga li kii Abou Ndour wax nee nañu 2009 la ñu gëjoon drapeau chef de l'État ci biir waxam nee na ki ko jëloon mooy pakala bu Mbour moom moo ko jëloon 2009. dégg ngeen ko wax ngeen tamit ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñaanal ñenn ñoo xam ni ci njabootu làmb la ñu bokkoon ku ci mel ni sunu papa Alioune Seye ñu ngi koy ñaanal sunu borom xari ko àjjana ci àjjanay firdawsi waaye ñu ngi ñaanal tamit papa mama. mama mi nga xam ne ku ko xamoon xam ko ci ginnaaw Lac de moom it ci accident bi la desee bari woon na ay magu waalo yoo xam te ni tey ci bi ñuy dugg paal jàpp ndar moo ngi nii mu ne 2009 moom abu Ndour moo wax mu ne pont baa ngi nii ñuy dugg si pont ndar waaye abu ne pont wu ndar abu mu ne 2009 lañ fi mujjee woon paka la moom moo ko jëloon ndeysaan ñi ngi ci pont ndar bi mu nekk nag pont Faidherbe bi bu ndar Faidherbe baa ngi ne ci kanam mooy ville bu ñuy wax ndar nag dëgg dëgg dëgg ndar fii la li mooy ville ndar lii yaa ngi gis brise bi ngay xool diggante géej gi ak dex gi ni ñuy ni ñu ni ñu yëlal ma dex beeg géej gi mooy bël ba mu àggagu fa fa nga ko moom mooy Faidherbe bi rek lépp ci Faidherbe ndar bi la gisoo ni mu taaroo nee am ñu wàcc ngi wër rond point bi jëm fédère bi ah am na ñuy wàcc ngi mi ngi wër rond point bi ndeysaan muy pont bi pont wu ndar pont wu ndar may ñu ndeysaan ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di pont bi. Abu Abu Ndour. ndeysaan Abu Ndour bëgg nañ moo sànni ci ay quelques kaddu. ndeysaan ñu ngi ci pont wu Ndar bi jëm Faidherbe bi. muy pont bi ndeysaan pont wu Ndar baa ngi nii mu bari nag lu fi xewee ci Ndar. ci lu baree bare histoire yoo xam ni ci ndar waaye ñoo ngi jaale waaw abu tey ci histoire ndar histoire si <laughs> côté yëpp ndar dafa bokkoon ci les les quatre communes ñoom ñoom Gorée ñoom Rufisque ñoom ñoom Dakar ñoom Ndar Ndar ci wàllu sport droit de la hauteur de la poste Ndar ci wàllu soir mënoo bañ a wax ci ci wàllu diine wax nañ ko ñoom ñoom euh, sëñ Touba ñaari rakka yi ngay dégg nee nañ nag fii la c'est c'est titi ah waaw waaw may leen may leen ah wàllu kii diina ñoom ñoom ñoom ñaari rakka yi suñu mbokk mu di def donc euh, ci ci ci Ibra Fall boo déggee yu ndur naan la doomu ndar lu lu mu tuuti xam xam na ni ñuy jullee mooy fii ñëpp a jàng diina waaye culture mënoo koo ñàkk le festival international de jazz chaque année fii lay am di regrouper ay ay ay sommité yu yu jógee fu ne si àddina bi di fi ñëw kon ci wàllu culture mais ci ci wàllu lii ñuy def nii sax mooy mooy mooy mooy presse Golbert Diagne mënoo wax ndar te te waaw mu mu mu béy waaram lool ci wàllu ci ci ci ci wàllu presse ci wàllu éducation euh, université Gaston Berger yàlla dogal la man falaa laa jàngee quatre ans laa fa def bokk na le les les meilleurs universités yi nekk Afrique. ñii ñi ñiy liggéey tey si gouvernement Sénégal ak si poste yi gën a sarde Sénégal boo leen laajoon ñu ne la fii lañ génnee kon wàllu wàllu éducation donc boo xoolee côté maanaam côté ndar ndar la kii la boo xam ne sport mënuñu ko bañ a wax mooy El Hadj Diouf maire Diouf yaayam fii la fii la fii la fii la def euh, Amara Amara Traoré yoroon équipe nationale nekkoon maire maire buteur fi nga xam ne moom mooy gëñoo donc ñooñu mënoo leen mënoo leen wax sport te doo leen tudd gis nga 2009 ñu ñëwoon fi papa la jëloon ko 2008 2008 la woon fii Pakala jël ko 2009 lañ ci teg Fodé sax jël ko euh, Louga mu jeex par par individuel ci lañ commencé def euh, drapeau chef par équipe 2011 fële fi nga xam ne moom mooy Diourbel kon nag fii ville la boo xam ne c'est une ville chargée à à point de de ci côté yëpp côté bu ne waaye nag li ñu fi indi mooy drapeau chef mu nekk loo loo xam ne histoire la gis nga daaw gis nga ñu ko jëloon Dakar jël ko si ki nga xam ne mooy Fatick Dakar Fatick y a de fortes chances ñu ñu daje en demi-finale. parce que le, le premier de la poule A euh, Fatick dakaar mu nekk poule A premier poul A war a dajeeg premier poule C Fatick mu nekk poule C su fa génnee dafay dajeeg Dakar mu nekk rimeeku finalu daaw moo nekk dem final donc nga gis ne poule ñoom Diourbel euh, Diourbel ak ak ak euh, Diourbel ak Thiès ñoo bokk poule dafay métti. ki fay génn ak ak Kaolack lay lay war a dajal donc gis nga ay demi-finale déjà yu extraordinaire la ñuy la ñam mbër yi naam mbër yu bëri ñëw ñu parce que boo nee un drapeau CETA sans sans ordinateur sans Doudou Sané sans Ganja Fama sans Ndiol Géant sans euh, nu nu mu tudd Gane Seras sans Serigne Ndiaye 2 sans sans sans général Malika kon ça fait trop. bari na ay star champion yi gën a kii ñëwuñu waaye nag du tey ñi fi nekk am na ci ñoom Tony sax laa bëgg wax mu ngi ci la bokk donc am na donc ñu bëri ñoo xam ne ay champion yu confirmé la yàlla dogal na du ñu bokk mais nag du du du tey on s'attend à à des à vraiment relever ay duel yu neex a neex a neex côté catégorie de poids gis nga ñoom ñoom ñoom ngoon ñax Ngor ñaax ak euh, ak yaamu ya ya kii yaamu Dakar ak kii ki nga xam ne moom mooy Sini Sembène ñoom ñoo ngi nekk équipe nationale de groupement war a war a dem Tunisie juste bu ñu paree fii dañuy dañuy jël avion de dem Tunisie biir Sirtring donc ñoo ngi nekkoon euh, euh, équipe nationale regroupement nekk sa sa sa sa sa sa région mu a ku nekk nag war a wone li nga def équipe nationale li liñ la fa jàngal lan la wone ko donc mu nekk daal drapeau bu neex a neex et puis ñu ñëw fekk si dëkku Marème Faye parce que fii la fii la soqe ko d'ailleurs sa euh, jigéenam kii euh, naka son frère di ah Mansour moo fi maire dégg ngeen keroog bi Macky Sall naan kii moom mooy moom moo woote kon nag war na na génn xaalis ba maxu naan ko kii jox ko ndigal mu ne jox naa ko ndigal na génn xaalis mooy wote ko kon nag jàpp na ne bon drapeau bu war a neex la doon fii nga xam ne mm, ceebu na rek yooyu ngeen doon wax yëpp fii fi la ne vraiment yu bëri waaw dafa boo xam te ni dafa am daloon ci wàllu làmb mu tiis lool tey ngay dugg si Paal jëm si Ndar bi nga ba foofu tey lan nga sentir foofu wala waa Gandiol xam nga Bazooka ak euh, Lac de bu ñuy bëri fii Saint-Louis ñoom Mama Ba kooku nga xam ne ku ne Lac de ne Mama Ba ak ñu ñu fa àndaloon fa fa la seen oto oto bi defoon choc yàlla yàlla dogal ñu yem fa kon mënoo dugg si ndar te te waxuloo gànjool loolu loolu histoire da koy retenir même si les si les vrai que nekkul lu lu neex si xol waaye boo dee làmb di ñëw Saint-Louis mënoo romb romb gànjool te sa sa sa xel demu si ñu leen di ñaanalaat encore une fois yàlla na suuf si sedd seen seen kaw vraiment daal di ñaan di jox ñëpp di daje si kanam si compétition par équipe lay doon tey suba compétition individuelle dimanche mooy nekk toutes les. suprême des armées sa bopp. rawatina région bi nga xamante ni région bu mag la ay kilifa yàgg fi bàyyeekoo dëkk bi ñu jëm ñu tey ay ndaanaan jóge nañ fi Cheikh Seydi Hadji Malick nekkoon na fi maam borom Touba nekkoon na fi Cheikh Ibrahima Fall nekkoon na fi Serigne Babacar nekkoon na fi dëkk bi tey ku fi dugg tey mais ma gën a ci dëkk bi maanaam dex la ak géej bu taqaloo est-ce li am ci Sénégal bari na ñoo ñoo ñooyu dugg gis nga brise bi ñu ngi commencé dugg si Ndar ndeysaan gànjool sama dëkk maam waaye jot sa nga jot sa dëkku maam xol xolo feex mi lay dugg brise de mer dans cinq minutes mën nga jot sa dëkku maam gànjool mais bari na barke barke barke kase la maanaam dëkk bi nga xamante ni ndox ko wër dëkk boobu loo loo fa ñaan yàlla mën na ko nangu pare moo ay culture yoo xam te ni ndar bari ay tourisme ndar yàgg na bëri ay tourisme boo boo koy tey xam le ndar am na ay tourisme yàgg na am ay maanaam ay ay jënd ak jaay tey boo wàccee tey ba jéeg pont bi ba jàll sanca ba mais makan makan di nga xam ne ndar du marum benn dëkk. mais mais xoolal ma dëkk bi ni mel tourisme bi ak garab yi. environnement wu dëkk bi. makan fii wute naag fi ñu demoon daaw. environnement wu dëkk bi. boo xoolee environnement dëkk bi nga xam ni ndar daal du dara. yaa ngi sant ngelaw lu neex lay dal. xam ne ndar moo nekk moo njëkk nekk première capitalu Sénégal. suwaaru ndar dëgg ndar dëgg ci temps des yi ndar Tëngéej bokkuñu woon ci Sénégal. français la woon fii moo nekkoon premier capital dégg nga bu baax Ndar Dakar Tëngéej Gore bokkuñu woon ci senegal ya ya yàgg mais Youssou Ndour daa woy woy wu rëy laaj leen ma lu ma gën a neexoo ca Ndar géej mu ne doomu Ndar day teey civilisé te bëgg baax mu ne mag ña jekku lool bari kersa tey tey dox dox ñu naan ah est-ce que Ndar man c'est la première fois ma ñëw Ndar tey. Makan yaa ngi jëm dëkk bu neex Makan yaa ngi jëm dëkk bu mën gan macha allah teraanga gi Makan dalal gan teraanga àddina bët man gan waaye boo duggee